salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu comme ni ma koy defee saa su ne di leen sant di leen gërëm di sàkku ñaan ci yéen ngeen ñaanal ñu yàlla musal ñu ci seytaane ak euh, bët bu bon <laughs> donc tey lu may commencé mooy li may wax mooy comme ni ngeen ko xamee suñu président Espagne Espagne bi fi dafa ñëwoon senegaal neen dafa ñëwoon seet si Macky Sall waaw léegi nag tey damay làkk tuuti espagnol xam nga sama jàng soriwul wax naa leen man dama ñulaar maa gën a ñulaar ci waa Sonko mais am na lu ma xaw a jot bind tuuti en espagnol dama koy liiral suñu président bi mooy Pedro Sánchez mi nga xam ne dafa dem euh, xaw ma senegal pour mu wax lu ñor sénégalais pour mu wax Macky Sall mu mu mu wax ak gouvernement bi ñu bay ñu ñuy ñu ñuy rey ak ñu ñuy tëj waxul loolu mu naan ay mbalit ak Covid moo ko fa yóbbu donc moom laa bëgg a wax quelques phrases yu ma bind fii moom président Espagne bi waaw su ma paree nag ci président Espagne bi su ma paree ci discours bi ma doog a ñëw nag ci olof ñu làkk olof du noonu léegi da ngeen may may tuuti rek ma lire en espagnol li ma bindal président bi président espagnol yi waaw.

con quien tengo mucho respeto, lo tengo mucho respeto, el, presidente Pedro Sánchez. Pero me gustaría leer estas palabras por él. Señor Sánchez, a nadie le gusta dejar su país, su cultura, su tradición, sus hijos, sus amigos, su familia. A nadie le gusta. Se hace por necesidad. Necesidad, ¿cierto? Creciente a mi país gracias a la incapaz de un gobierno de mantener a la gente, a la población de su país, de que la gente tenga una vida digna en su país. ¿Por qué inmigran los senegaleses? Por lo mismo que inmigraron este país. Eh, en, España, los españoles cuando inmigraron por necesidad, por la incapacidad de un gobierno de industrializar un país, de un gobierno incapaz de dejar de robar. Y ustedes apoyan en un gobierno que tiene 14 muertos en su espalda. No sé quién habrá preparado su, agenda, pero hay cosas mucho, mucho más importantes que hablar en esta precioso, en este preciso momento en Senegal. Policías que matan a los jóvenes que manifestaban y sin manifestar esa es la democracia de mi pobre país, Senegal. Yo sinceramente, si usted se habrá informado bien lo que tenía que haber hecho de un presidente como Macky Sall, el presidente de mi país, era declinar su invitación, porque es totalmente improcedente Vaya, que vaya a Francia. ¿Con quién hace los negocios? Negocios raros. que hacen? Pero ustedes saben, señor Sánchez, que nosotros estamos haciendo lo que podamos o lo que podemos para informar, para, sensibilizar, sensibilizar la gente de mi país para que no vengan para que no vengan aquí con barcos, con, ¿cómo se dice?, pateras, etc. Estamos haciendo lo que podamos, ¿vale? La gente no está viniendo porque no tienen de qué comer, porque el país va mal. Ahora, usted se va a mi país en vez de hablar y defender, como dices, los derechos humanos, has hablado de basura, has hablado de no sé qué, del COVID y unos convenios. ¿Convenios de qué? Nosotros sabemos, toda la gente sabemos que ustedes se van a África por lo que tenemos. Lo sabemos. Toda la gente lo sabe. No nos engañamos. No nos engañamos. Si ustedes quieren que paren de venir la gente en Europa, lo puedes, eh, eh, que sea Francia, España, Bélgica o otros países, lo pueden parar. Lo pueden parar, por, no quieren pararlo porque tienen sus intereses. Tienen sus intereses, vale. Pero os voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo lo que puedo para sensibilizar a la gente de mi país. Hacer campañas para informar a nuestros hermanos. Porque aquí en España, de verdad, hay cuatro millones de personas que no tienen trabajo. No tienen trabajo, están en el paro. Hay gente que no tienen para comer. Hay niños que se quedan sin comer. Vale, pero la gente viene pensando que, hay, que, eh, que aquí es mejor que Senegal. ¿Verdad? Es mejor. Pero aquí también está pasando muy, muy mal la gente. Muy, muy mal la gente. Pero usted no tiene que apoyar el presidente de mi país. Creo que no, porque en mi país no hay democracia. No hay democracia. Están matando a la gente. ¿eh? Nadie puede hablar. Si hablas, te acusan de terrorista. Si hablas, te ceran. Si hablas, te, eh, te pegan. Si hablas, te machacan. Pero a ver, ¿qué país es eso? ¿Qué país es Senegal? Ahora toda la gente tiene miedo de ir a mi país porque si vas y hablas en, en, los, eh, canales o en las redes sociales, te vas a tu país, te cogen, te cerran. O te mandan una, una, ¿cómo se dice? Una denuncia diciendo que eres una terrorista o no sé qué de qué. ¿Por qué? ¿Y estáis apoyando a esta presidente? Lo siento mucho, pero yo no os entiendo. Vale. Eh, Suma su ma ci jógee sama si yi ci ci Pedro Sanchez ndax mom dafa Senegal Sénégal néna. bu mu ñëwee Sénégal néna dafa ñëw wax pour affaire mbalit yu intoxiqué eh, ñëw wax pour Covid ak bop bi muus kaña bi fi la jaaroon man lima lima kay laaj moy mom Pedro Sanchez mom dafa fogg ne ne ñu ñi bayi sen dëkk bayi sen yaay bàyyi seen doom bàyyi seen culture bàyyi seen lépp ñëw bitim réew ndax loolu da leen neex xam nga loolu neexul kenn nit koo gis mu bàyyi réewam ñëw bitim réew fii dafa am lu tax nit ñi jékki-jékki ñu rek ñëw nii ndax boo nekkee sa réew amoo li ngay lekk amul ay industrie amul ay lu muy tudd amul ay société nit ñi mënuñoo liggéey mënuñoo def dara naka la ñuy toogee seen réew ku ci wax tamit ñu jàppale tëj la ay nit nee naa ko quatorze personnes ñu ngi noonu dee bi mu demee Sénégal lu tax waxul ci loolu ñoom ñi nga xam ne nee nañ dañuy défendre naka la droit de l'homme droit de l'homme la ñuy défendre kuy defaat droit de l'homme kañ boo demee ba nga xam lu fi xew barki dem boo njaay Sénégal yàggul dara boo demee nga wax ci loolu nga yedd président bi nga ne ko lu fi am de waru fi amaat dégg lu fi am waru fi amaat bu bu fi kenn deewati waaye nga dem ngay wax muus beeg mbalit beeg kaña bi fii la jaaram ñun soxlaw ñu loolu te ñun ñun sénégalais ñu ngi def lu ñu mën di sensibiliser suñu frères yi ndax gis neen Espagne bi dëgg la am na ñu ñu yàlla may am na ñu fi tekki ndax wërsëg moom yemul waaye espagnol yi ñu ngi ne 4 millions espagnol amuñu liggéey fu ñu toll nii au chômage lañu nekk ñu ngi chômé dégg nga famille yu bëri amuñu lu ñuy lekk ci mbalit yi la ñuy dem jëlee lu ñuy lekk croix rouge yi ñoo leen di dimbale association yi ñoo leen di dimbale ONG yi ñoo leen di dimbale dégg donc ku nekk am nga lu la doy. ma ne ko ku nekk am na lu la doy donc bu ñu dem Sénégal di di di di ñu rey naan ay Covid lay wax ay mbalit moom lu ko yóbbu Sénégal xam na ko leneen a ko yóbbu Sénégal maanaam comme ñeneen yi rek lu ko yóbbu Sénégal xam na ko waaw lu ko yóbbu Sénégal xam na ko yéen nag yéen a ngi seetaan Macky moo ngi noonu Pedro Sanchez ñëw na ñu naan déet mu dem Belgique ñu naan déet eh, français yi ñëw mu naan ay convention la ñuy signé ay xawma lan la ñuy signé bu yaboo nag. yéen sénégalais ngeen préparé xaw ma nag lan la nekk di préparé ci suuf waaye nag lu muy préparé lu muy xeeñ xasaw xunn la def bu yeboo ngeen préparé ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen partagé vidéo ñi ñi nag dañuy nekk di wax ba dee di sensibiliser nag du ngeen du ngeen partagé day leen partagé nag sama gars yi nag ah ngeen ngeen ci mën a jàpp donc li may wax mooy eh, moo ngi noonu sëriñ bi ñaan na ko nanguwul nit ñi wax nañu nanguwul bu beneen yoone nag bu fi nit ñi génnee bu fi nit ñi génnee. na xam ne ne sëriñ bi bu du du intervenir at ndax moom fonkul fonkul kàddu kenn fonkul dara lépp li muy wax ay fen la dëgg dafa xëy ngontu donc may wax sénégalais comme que moom fu mu nekk ni pays tubaab yi nekk mu ngi ne mu ngi fay ne copp di daw di taxaw maanaam maa ngi dëgg eh, keroog ci eh, nu mu tudd journal télévisé bi ñu naan dañ ko bëgg a def président lan de l'union africaine yow kii kan moo koy def président de l'union africaine man loolu lay laaj ñi tey réglé dinañu jël Macky Sall di ko def président de l'union euh, naka la l'union européen euh, xaw ma l'union africain ñoom lu ñu nekk di sumba ak lu ñuy nekk di def ci suuf ak Macky Sall ñoom xam nañ ko bu baax ma ne ko xam nañ ko bu baax donc ñun ñoo war a taxaw tàkku suñu réew ñun ñoo ko moom lu xew Mali bu ñu nangu mu xew suñu réew lu xew beneen dëkk na bu ñu nangu mu xew suñu réew Sénégal ñun ñoo ko moom kenn moomu ko kenn moom ko sénégalais yëpp nañu nañu génn wax naa leen ko maa ngi leen di ngeen génn luy raam ci ñag ba la jëm luy raam ci ñag ba la jëm génn leen ngeen manifeste def seen pancarte bind naan soxlawu ñu européens yi ñëw Sénégal terroriste amu fa dara amu fa lu ñu soxla mooy président bi nañu abal na dem yoonam. waaw bëgguñu mu def troisième mandaa tey bëgguñu mu def troisième mandaa gannaaw suba na dem abal ñu suñu réew donc borom dëj mooy je mooy jooy dëjëm donc ñun tey bu ñu génn ñu toog suñu kër yi rek ba ñu génn jël suñuy pancarte bind fa li ñu fa war a bind nit ñi gis ko tubaab yi chaque jour ñu ngi ñuy suivre gis nga bu réew mi yëngatoo ñoom ñëpp ñu ngi wàcc si foofu di ñëw di négocier di def yu kenn xamoon ñoom xam nañu lu tax ñu nekk di ñëw. xam nañ ko de xam bu baax lu nekk lu tax ñu Sénégal di di di collaborer ak Macky Sall donc ñun population bi ñoo war bañ ñu muus Macky bu ne sax daf ñuy dóor wala xawma lan ak lan buñ ko faale na lacrymogène na def lu ko neex ñun nañu bind suñu marche pacifique ci suuf ñu ñu message ñu lancé suñuy message ñépp dëgg ko ñu ñu lancé message yeneen pays ñu xam ne ne États-Unis wala ñu que Macky Sall lu mu bëgg mooy suuxal réew mi loolu la bëgg te ñun duñ ko nangu mais loolu ñun ñoo ko mën a xeex comme que ñun ñu ngi ci réseaux sociaux yi di wax ñeneen ak ñeneen ñu ngi wax xanaa yéen kay war ngeen mën a marche yéen a ngi noonu nervi yi ñoo ngi jàpp eh, keroog waa Barthélemy Dias yi dóor leen ba ñuy bëgg a dee ah ñuy waxati xaw ma fan ban dëkk Podor côté yooyu tamit ñu jàppati keneen dóor ko ba muy bëgg de léegi ku génn pour wax ñu kar la dóor la. كوجين بور واخ نيو كار لا دور لا ليغي انا ديموكراسي ليغي نون لا نيو سيطان با نيو رياات في نيت ولا دارا خيوات في ما نون لا لين دي لاج موغي نونو سونو فريري با تاي بايو لين نيوغي واخ با سونو نانغو لين باي ها ليغي لان لا نانيو ген ني مان ما ني نانيو ген نانيو ген مارش سو بوغي مو جاب ما نيو يوبوما نانيو ген مارش لا واخ واخوما كين ري كين واخوما دور كين مي نانيو ген مارش كا سونو دروا وا 3 مانداب في ام تي تي تي خمال لا ماكي سال daf ñoo sonal daf ñoo sonal li muy wax ak lu muy def du benn moo ngi noonu Belgique lan lay def Belgique barke démb Pedro Sanchez ak français tey moo ngi Belgique bu su gannaaw subaa mu dem Allemagne bu gannaawaati suba mu suñu réew mi dana nekk di tayle yéen loo leen foog lu ko fi indi suñu réew mi la nekk di tayle ñoo fi pour def dara lu mu fi ñëw maanaam lu mu fi ñëw def yépp bitim réew xam nga ne njuuj njaaj kese moo ko fi indi dara indiw ko fi indiw ñëwul ñëwul pour defar Sénégal ñëwul pour Sénégal avancé ñëwul pour dara boppam rek la fi nekkal comme ni ma leen ko waxee boppam rek la nekk di xool ak famille donc sénégalais ñun ñoo war a yeewu instant ñun ñoo war a yeewu ñu commencé jàpp jàpp si dëgër fit taxaw timm défendre suñu Sénégal ndax Sénégal ñoo ko moom comme ni ma leen koy waxee bàyyi kenn moomu ko ñun ñoo moom suñu Sénégal donc bu ñu xeexalul suñu Sénégal. ñun ñoko koy ñun ñoko ko ñun ñoy sonu rek ñun ñoy continuer du sonu chaque fois ñun ñoy sonu di dépendre ci ñeneen ñi waaye bu ñu xeexee am suñu liberté di nga xam liberté nu mu nexé bo nit nit ku mom bopam nit ku ñu notul ak nit ki nga xam ne ne moomul du ben sax te yéen ñun dañoo xeeñtuwul sax liberté liberté dañ ko xeeñtuwul xam nga xeeñtu lañ lañ lañ ko deful donc ma leen wax yéen ñëpp ngeen génn nañu génn tàkk suñu sër euh, jigéen yi euh, góor yi xam nga jigéen yi sax dañuy ne góor yi nañu génn jigéen yi ñoo war a génn yéen sama sama sama jigéen yéen lay wax jigéen yi Sénégal yi génn leen lu nee nañ euh, góor mooy ñaari loxo mooy tàkk tubéy waaye ñaari loxo tamit mooy tàkk sër donc man jigéen yi lay woo génn leen bay leen lëlu bi bay leen lëlu bi ñoo ngi aw vingt et unième siècle fu mu nekk nii ci àdduna bi jigéen ñi ñoo jiital ñoo ñoo nekk ci kanam donc na jigéen ñi yëpp génn xeex bi suñu combat la du xeexu góor yi de suñu combat la ñun jigéen ñi ndax suñu doom yi seen avenir moo nekk en jeu donc ñun jigéen ñi ñoo war a génn ñun ñoo xam ne ñuy sonn bu ñuy jur suñuy doom ñun ñoo xam ne ñuy sonn bu ñuy yar suñuy doom dégg nga ñun ñoo gën a sonn koo gis donc ñun jigéen ñi ñun ñoo war a génn tamit taxaw dëgg la góor yi ñu ngi ci kaw waaye ñun jigéen ñi nañu génn nañu génn jigéen yi bu ñu génnee boole boole góor yi ñu xeex manifester li ngeen gis dëkk bi nu muy demee kanam ndax jigéen yi kat am nañu fulla dëkk yi fii nii yëpp boo gisee fii sa premier ministre bi ak xaw ma ministre des forces armées jigéen la jigéen la ñu jël jiital ko. dégg nga ministre de l'économie jigéen la soo gisee ñu jël jigéen yi jiital leen kat dafa am lu tax. donc Sénégal maa ngi leen di ñaan yéen jigéen yi yëpp nañu génn nañ génn ngemb ngemba Sonko. dégg nga nañu ngeen ba sonko gunge sonko ba bés ba muy dugg biir palais ñun jigéen ñi bu ñu des gannaaw de benn jigéen bu mu bu mu des gannaaw combat bi suñu combat la da ngeen di wax góor yi nañu xool góor yi ñun ñoo leen di gagné incha allah ci combat bi bu soobee yàlla sonko dinañ ko xeexal ñun jigéen ñi ba dugg ba yóbbu ko biir palais. waaw ndax dëkk boo gis rek jigéen jigéen jigéen bu génnee ci xeex bi rek jigéen ñi bu ñu génnee di xeex xanaa jigéen yi bu ñu génnee di xeex ñu tiire ci jigéen ñi ñun jigéen ñi bu ñu génnee xeex yor suñuy doom boot suñuy doom kenn duñu tiire xanaa xanaa dofuñu ma ne ko xanaa dofuñu ñun jigéenu Sénégal yi ñun ñëpp bu ñu génnee boot suñuy doom yenn suñuy gën ak suñuy kër suñuy kin di tëgg di tëgg naan bëgguñu armee français suñu dëkk déglu leen ma de yéen jigéen ñi boo leen génnee yéenu seen cuumaar seeni kuddu seeni lépp li ngeen am génn topp góor yi ci marché bi dégg ngeen topp góor yi ci marché bi di tëgg naan bëgguñu bëgguñu benn européen ñëw fi ñu beneen autorité beneen armée ñëw rax ñu Sénégal boo leen ko defee yéen jigéen ñi di ngeen gis affaire bi nu muy changé xëy na ñee ñu nekk ay góor ñoo doon jiitu ak xale yu góor moo tax ñu leen di tiire mais jigéen ñi incha allah bu ñu génnee suñu yaay suñu maam yi suñu mag yi man waroon naa nekk Sénégal ba xam ndax du ma jiitu man ne ko waroon naa nekk Sénégal ba xam ndax du ma jiitu barke ak ah, salaatul faatiha su ma nekkoon euh, Sénégal. kenn kenn kenn du ma ne kenn kenn du ma fa jiitu ma ne ko kenn du ma fa jiitu donc jigéen ñi yéen laay wax génn leen nañu génn ndax Macky Sall moo ngi nii kàddoom du ko respecté fu mu respecté wul xalif général des mourides respecté wul kilifa diine yi gaw ma mu respecté fi kenn tubaab yi lay jaam yéen a ngi koy gis noonu ci réseaux sociaux yi xam ngeen ñu mu àndal ñooñu du ma tudd seen tuur nag du ma tudd seen tuur ndax su ma leen tuddee tooñ leen gis ngeen lu mu gëm. gis ngeen fu muy dugg gis ngeen ñu muy jëflante donc ñun sénégalais ñoo war a taxaw temm ndax ñun déjà ñun sénégalais bëgg nañu suñu réew mais Macky Sall bëggul suñu réew de Macky Sall tubaab yi lay liggéeyal liggéeyul pour senegal tubaab yi lay liggéeyal boo leen ko xamee xayrun boo leen ko xamul xayrun mais jàppale ni Macky Sall nekkul di liggéey sénégalais liggéeyul benn Sénégal.

te yeneen ak yeneen mu ngi làqu si suuf ñoom lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu yor man léegi dama bëgg la dama bëgg laajte donc sénégalais yi kenn bu mu nax kenn xaalis bu mu bu mu yor noonu ci ay comptam naan huit milliards yi Ablaye Wade moo ko ko mayoon léegi nañu xool léegi moom nañ ko audité bu bu bu bés bu nekkatul président nañ ko audité ñu xool ñaata million la am ak ñaata bien la am waaw parce que man dama xamul dañoo war a xam fan la jëlee xaalis boobu nag ndax huit milliards yu ko Ablaye Wade may tamit xaalis réew mi la du xaalis du du du xaalis Ablaye Wade ndax Ablaye Wade fu mu jëlee 8 milliards fan la liggéey 8 milliards dégg xaalis boobu noonu du xaalisam xaalis ba mu nekk di sàcc ak ay frère am du seen xaalis donc moom buy dem na dem ak jàmm mais xaalis dëkk bi nañu ko bàyyi. suñu xaaliss nañ ko bayal comme que tuba bi lay jaamu tuba bi lay liggéeyal tuba bi ñoy lepp mom na dess ak tuba bi mais suñu aller rew nañ ko bayal mais lolu sénégalais ñun sénégalais ñoko wara xé kenen xeex waru ko xé du buki ne du buki nabé ñoy ñoo xéxal ñuko du Malien ñoo xéxal ñuko ñu ko du Rwandais ñoo xéxal ñuko comme nima ma leen koy waxé donc instant yi comme que ñun ñëpp. xam nañu ñépp a yeewu léegi jeunesse bi yeewu na Sénégal moom comme ni ma la koy waxee mag yi yeewu nañ xale yeewu nañ ñu doon nelaw yépp yeewu nañu léegi lu ñuy def nag comme que ñépp yeewu nañu ànd liggéey ànd nekk benn dégg lu ma la wax jàppalante jàppoo ndax comme ni ma leen ko bu ñu jàppoo woon bu ñu nekkul benn du ñu mën a yóbbu réew mi ci kanam ñu jóg takk suñu sër takk suñu tubéy yi liggéey nañu liggéey bu ñu xaar sax ma Sall nañu commencé liggéey dès maintenant carte d'identité yi ñu jël nañ ko bañ ko jox nit ñi nañ ko lijjanti nañu def ay marche loolu yëpp dañ ko war a dénoncer waaw nañu def ay marche génn nañu delloo suñuy carte d'identité man maa ngi ni ñu jàpp sama carte d'identité nanguñu ma ko delloo trois ans ngi ni mënuma fexe ba jot sama carte d'identité yéen a ma yéen déglu sama passeport laa yor ak samay kayitu fii su ma amoon su ma amutoon kayit fii mooy torox naa mooy torox naa donc li ma leen di wax mooy lu ñu nar a xeex dafa bëri dafa bari dafa bari ci Sénégal lu ñu war a xeex dafa bari laa wax dara doxu fa waaye nee naa leen sa mbajam sa sa mbéjum kanam yaa koy fajal sa bopp sa mbéjum kanam yaa koy fajal sa bopp nañu jóg nañu jóg ñu bàyyi nag nañu bàyyi nañu bàyyi kii nu mu tudd tayal tayal tam dañoo sonal ñu bàyyi tayal jóg liggéey ndax Sonko nee naa leen bu ñu ko fi tegee tamit foog ñu ànd jàppale Sonko waaye Macky Sall moom bu yeboo ngeen dugal ko seen bopp yi tubaab yi lay liggéeyal tubaab yi lay jaamu lu mu am suñu alal bi yëpp moo ngi ko jël tayale ko tubaab yi te tubaab yi duñ ñu bàyyi de bu la leeree muy seen jàmm yàlla tubaab yi duñ ñu bàyyi déggu leen ma de duñ ñu bàyyi tey duñ ñu bàyyi suba duñ ñu bàyyi gannaaw suba ndax seen dëkk lu koy doxal maanaam lu ñu soxla yëpp Afrique la ne lu ñu soxla yëpp mu ngi suñu biir réew lu ñu soxla yëpp ñu ngi ko yor ñun waaw te ñun tamit.

on a on a on a tout on a la force on a des jeunes hein? on a des ressources naturelles hein? nous avons des craques nous avons des nous avons tout Hein? mais lu de ces rek mooy ak fit a am fit fait, boni ci dëkk bi lu rek fait, donc ma fait, man de du ma bàyyi de du ma dellu ginnaaw ma ne ko du ma dellu ginnaaw du ma du ma saaga nag saagay bom yu ñuy wax noonu jaar fu bon nangamtaan tànn non du ma nangam tànn de mais lu ma nar a dénoncé dinaa ko dénoncé waaw dinaa ko dénoncé nit ñi génn ñu wax. foofu laa tey loolu laa amoon lu may wax donc discours bi ma doon defaral Pedro Sanchez liiral naa ko ko ba pare dina ko dëgg waaw su ma paree ci loolu ma ñëw ci Aïda Patra gis naa marchand bi may ne Aïda Patra. <laughs> xam nga nag Aïda Patra su may wax ak affaire Aïda Patra ak Françoise Hélène Gaye ak Mati Trois Pommes ay rey la may def man ay rey la may dex soo gisee ñoom ñëpp dafa am lu leen boole ñoom ñooñu dafa am lu leen boole ñoom ñëpp e, zuy bi boole na leen xam ngeen luy zuy noo duma fi nekk di tudd tur maanaam boobu tam boole na leen boole na leen ak yeneen yu nekk ci ginnaaw donc nee dañu doon marche man marche bi ay journaliste rek laa fa gis ak cinq personnes donc loolu sax daf loolu gàcce la déjà loolu rek loolu rek gàcce la loolu rek tontu na Aïda Patra bu beneen yoonatee buy marche dina xalaat bu baax newoon naa ko mu ñëw ma jox ko suñu mbaam yi ñu fi ñu Macky Sall yónnee ñu accompagner ko ci marche bi mais gis naa ne ñëwul dégg donc. Euh, comme ni ma koy waxee ñoom Aïda Patra jarul ñu yàq suñu salive yàq jarul ñu yàq suñu énergie jarul ñu nekk fi di reyante ak ñoom ndax population bi war na leen seen bopp même waa Macky Sall yi sax génnuñu jàppale leen ci seeni marche loolu mooy wane ni que duñu dara loolu mooy wane ni kenn soxlawul ànd ak ñoom fu leen waa Macky Sall yi sax euh, dimbalewul fu leen waa Macky Sall yi sax appo jaarul kan nga xam ne ne ñooñu ñun Pastef jarul ñu ñu ñuy sonn ci ñoom ma ne ko jarul ñuy sonn ci ñoom léegi nag bu amee ñeneen ñu bees ñu génn ñooñu dinañ leen tontu comme paa bi nga xam ne ne maa ngi ko doon gis waar la sant ku doon ne sonko triant la sonko sàcckat la sonko terroriste la sonko xaw ma lan ak lan ay pàpp ay pàpp ay pàpp pàpp xalaatal bési bési yow mal xiyaam yàlla woo la dala eh taxawal fi li nga doon wax yeb delu ci kay nit buy wax da ngay xalaat li ngay wax ndax suba yo mal xile am waaye yow pa bi taxaw rek ne temm naan sonko violeur la terroriste la xawma la nak la nak lan say dom tim la say jabar tim la say dëkkandoor tim la Sénégal yeb tim la rusulo ragalulo say bët raf-raful ci kilifa ci kilifa loolu loolu loolu man musu man mun maa comprendre xanaa nga rus sa doom yi xanaa nga rus say dëkkandoor xanaa nga sa jabar ndax jabar nawle la doom nawle la dëkkandoor nawle la waaye papa ay papa papa nga nekk rek jàpp Ousmane Sonko rek ŋànk ko jàpp Ousmane Sonko rek di wax wax yoo xam ne man dama tiit sax eh léegi man sax naka laa lay wooyee papa ah dama lay wooyee papa rek parce que mag mag nga rek. mais papa nit buy wax day jël gémmiñam bi lamiñ bi yëngal ko juróom ñaar yoon ci gémmiñam bi balaa muy génne ay kàddu ndax kat mag mag soo déggee ñu ne mag dafa am lu tax soo déggee ñu naan mag dafa am lu tax waaye nga jàpp Ousmane Sonko rek ŋànk ko di wax waxi bon waxi ñaaw Sénégal yépp taxaw di la tiim ngay wax wax yi nga xam ne ne ku indi woon kaamil doo ci teg sa loxo wax noonu pour wax rek waxu picc rek pour wax man daal damay damay dama lay ñaan yow papa booy gënati di wax taxawal tuuti nga science nga ne ah man am naa ay doom man am naa ay jarbaat man am naa ay sët ndax gàcce bi su boobaa du doon sa gàcce yow kenn sa gàcce ak say famille ak ñu la topp ak ñu la xam yépp la donc boo leen di wax xam ne li ngeen di wax lan surtout boo doonee mag ñun xale sa garaawul mën nañu fël-fëlaale waaw mais mag mag buy wax day seet bu baax li muy wax lan la man loolu rek laa am li may wax ndax am na yoo xam ne ne moom mag moomu ko de ma ne ko am na yoo xam ne ne moom wax dëgg fa yàlla mag moomu ko mag buy wax dafa war a xool bu baax li muy wax pour ëllëg pour ëllëg pare naa ci wax bi sama gars yi maa ngi leen di bàyyi ba beneen yoon xaw ma nag eh, ma leen di souhaité yéen ñëpp eh, nu mu tudd bon ramadan na ñëw ci jàmm. ñu fekkee ko jaama dugg ci si bisimilahi rahmaani rahim génn ci si alhamdulilahi rabbil alamin xaw ma nag ba xam ndax dinaa def ay live ci weeru koor bi oh non mais su ma génnoon di def live sa si weeru koor bi xam leen ne si yeneen laay wax wala ma leen di toggal ay ndogu di def ay ndogu direct di leen ko won loolu laay def mais quant à xuloo ŋaayoo ak yeneen yi non weeru koor bi moom wax dëgg yàlla ma ko respecté torop donc yeneen la ñuy indi ci weeru koor bi bu ñu paree weeru koor bi nag ñu commencé nag su ñu suñu combat non yeggali combat bi kañ vingt 2024 du noonu mais weeru koor bi moom nañu respecté sénégalais respecté ñëpp du dégg loolu rek laa am li may wax merci beaucoup à tout le monde maa ngi leen di fóon ñëpp comme ni ma koy defee saa su nekk